jirë ngeen jëf àll bu nekk nee nañu la fay ñuul moo fa dim ñàkk gox bu nekk ci réew mi la fa dim ndox moo fa jur joote l'observateur bind ci xëtam mu njëkk ne joote ji taw bi jur ci réew mi dem na sax ba faati bakkan juróom-benni yaa yaadama faatu nañu ci réew mi ndax ndoxum taw bi ñi faatu ak fa ñu faatu l'observateur nañu moo di ñaar ña nga dëkk ca Sédhiou kenn ca Grand Yoff kenn ca Kaolack ka ca des ca Pikine ginnaaw raay am na it keneen ku faatu ca diwaanu Tëngéej libération xëy tëgg gémmiñam di ci ndoxum taw mu bari meeg loraange yi mu jur ci réew mi yéenekaay bi jukki ñu ci xëtam njëkk ne am na genn gone gu toll ci ñaar at gu faatu ca Grand Yoff am na benn waay bu ñu naan Basiru Sarr toll ci ñaar fukket ak juróom ca tunnelu ginnaaw raay sud ba fa la des benn agent bu croix rouge bu ñàkk bakkanam ci Rufisque am na it ku faatu ca Kaolack ak yeneen ñaari doomi aadama yu faatu ca Sédhiou ndax ndoxum taw mi libération yamu ca ndax mi ngi ñuy wax ne foo dem ci réew mi askanu boole ak jaaxle ak tonk ngay gis ne bari nay famille yoo xam ne ndoxum taw mi dafa nangu seeni kër ba ci biti lañu fanaan armeel yu Pikine yi taw ba yàq na fa lu bari sëg yi dañoo taa ba néew yi di tëmb chantier yi aju ci beexte mu di bus rapide transit chantier ndoxum taw mi mëdd na ko ko la si ne kaay nañu taw yu am doole yi fi wàcc wàcc na ci kaw askan ak jaaxle gu rëy tumuranke gu mitti ak i ñaxtu yu ne jasar nit ñu faatu nit ñu yàqule ak i nit ñu nekk ci fitna yéen bi nee nañu loolee la dund ci réew mi enquête dina kaay mel na ku naan a gis ak samaam bu mu tax nga yaakaar ne sax nay bañ inondation yi ci Sénégal wopp la judul wér mukko góomub deewaale la journal lañ fa nañu assainissement bu bon bi am ci réew mi moom la taw yi feeñal ba ñu ne fàng ni góomub ja Abdoul Mbaye ne woon fii jamono premier ministre bu Sénégal ni ñu ci biir yéen a kaay bi bi yi doon farata ci réew mi ci enquête dina kay mi nañu fa 2012 bi nguuru Macky Sall di teru dañoo andi woon li ñu naan plan de lutte contre les inondations waaye daanaka fa ñu ko waxe woon fa la yi ñu ci waroon a dugal ba léegi kenn xamul fan la dugg laata bi nañu jot na nag ñu lijjanti 750 yooyu ñu doon wax naan dañu koy dugal ci plan de lutte contre les inondations journal bi bind ne rapport bi war am ci koppar yooyee asamaan si anticipé na ko Le di weere waaru weeri

mi daw na dawin wu ñaaw yéenekaay bi di laaj Macky lan lay wuti ci réewum Niger lu ëpp solo toog fii ci réew lijjanti jafe-jafe yi nga xam ne aw askanam ñoo koy jànkonteel mën nga ci réewum moom président de la République Macky waaye yéenekaay yu bari ñu xëyandool xamal nañu ne déclenché na plan Orsec laata muy dem bokk na ci yéenekaay yi ko bind Le Quotidien L'As Soleil National ak Enquête yéenekaay mi ñu ci dollil ne koppar yi ñu war Mbàkke Basiru ndigal li mu joxe moo di màggal day am ren màggalu Tuubaa gi dañu koy def les éco nañu sëriñ Basiru Mbàkke Abdu Xaadir porte parole xalifa général des Mourides moo jottali ndigal li démb xam le ne lépp lu sëriñ Tuubaa santaane bu laajee bakkan sax des ko cay def waaye xaddu ca damm ndigal li dañu koy jëfe enquête dina kay nañu moom Cheikh Bass dolli na ci di leeral ne màggalu ren gi du am cérémonie officielle